Buonasera a tutti ragazzi, vi saluto come sempre, sono Mor. Sono ancora tornati qui ad aggiornarvi, come ribadisco sempre. Io sento sempre l'obbligo di aggiornarvi, di informarvi, ma anche di orientarvi per tutto quello che tocca la comunità senegalese, africana, insomma la diaspora che vive sul territorio italiano. Quindi vi chiedo scusa perché di sicuro questa settimana vi abbiamo rotto le scatole con delle video però è solo l'obbligo di informarvi a tempo, perché abbiamo al momento in cui vi sto parlando delle ultime novità che riguarda la comunità senegalese, tutta la diaspora che vive sul territorio italiano. Oggi cercheremo a elencare tutte le novità. Avete visto che anche oggi ragazzi al momento in cui vi sto parlando siamo alle 18.30 in Senegal e alle 8.30 in Italia al momento in cui vi sto parlando è stato approvato al TDM di oggi dove c'è la presenza di Mario Draghi, il Premier, il decreto proroghe. Allora, questo decreto ragazzi è un decreto che anche fa a parte, nonostante anche ci, ci saranno alcuni provvedimenti dentro, ma anche un decreto che fa la proroga di alcuni documenti scaduti, permessi di soggiorni, passaporto, carta d'identità, patente, anche tutti i documenti scaduti, allora è un decreto che praticamente fa la proroga dei documenti scaduti. Allora, la seconda novità è questo. Allora, avete visto anche che oggi c'è stato l'incontro tra i sindacati del settore agricoli e il ministro dell'agricoltura Stefano Paduanelli. Allora, è uscito fuori che nonostante che gli agricoli, i braccianti agricoli dovevano scendere in piazza domani, o non lo so, forse oggi, il giorno 30, per, per un sciopero. All'ultimo, all'ultimo minuto è stato sospeso quello sciopero perché il governo ha dato quindi delle garanzie che si saranno nel prossimo decreto sostegno bis o aprire il bonus agricoli braccianti per tutti i lavoratori agricoli a tempo determinato. Quindi è una novità di sicuro che vi dobbiamo aggiornare. Avete visto anche che sempre che il governo sta varando dei decreti, noi siamo sempre vicini a sapere di più. Perciò stiamo dicendo che abbiamo l'ultima notizia, come si dice in inglese, we have the last update news, the breaking news. Oggi cercheremo a elencare tutte queste due novità insieme con voi. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar di leen nuyu man la seen mbokk taalibe mortal Talla Sarr vidéo bi nag euh, tey du du gudd dañ koy gaaw tënk tënk bu gaaw fi ñuy njëkkee mooy jamono bi ñuy def ak yéen vidéo bi di wax ak yéen gouvernement bi doon nañ daje nii léegi ci benn conseil de ministre boo xamante ni Mario Draghi moo ko jiite woon alors la génne nag mooy ne xam ngeen ne état d'urgence bi yokkaat nañ ko ba mois de juillet 31 juillet donc euh, le statut di émergence leneen la fa tukkeewaat tamit mooy bépp document boo xamante ni bi rek ginnaaw bi nga xamante ni bi décret yi ci ginnaaw alors euh, décret prorogue yi ci ginnaaw te yokkoon bëpp document bu waroon a escadére yokkoon nañ ko ba le 30 avril donc bépp document boo xamante ni rek moo xam séjour la permis de séjour na passeport carte d'identité patente rek bu waroon a jeex rek wala mu jeex qui, durant la pandémie del Covid 19 alors prorogare on le 30 avril bi di alors décret tey bii ñu voté légui Nous, nga deux heures de temps biñ ko voté légui ci conseil des ministres bi avons na proroga le 30 septembre 2021 lool qui est jangaté moy. c'est képp ce xamante ne séjour dafa jeex donc ci biir pandémie del Covid 19 alors est ce que den ce séjour bobu nonou yóbbuwaat nañ ko ba le 30 septembre 2021 donc euh, ñu leeral ko mbokk taalibe yi noonu moo xam séjour la carte d'identité passeport patente ak document yu xeet ak yu mel ni moom rek yokkaat nañ leen ba le 31 septembre 2021 kon képp koo xamante ne bi da ngaa nekkoon fenn ci biir Europe bi euh, Italie wala Sénégal wala feneen fu mën di doon te waroon na dem ay renouveler di la yóbbu ak yooyu wala document bu doon waaj a jeex ci weer yi di ñëw wala ci fan yi di ñëw xamal ne loolu stress boobu teggeeku na ndax kayit yooyu yóbbuwaat nañ leen ba le 31 septembre 2021 comme ni ko décret prorogue indee nii léegi ci ci ci ngoon donc euh, loolu mooy information bi gënoon a am solo ñu koy baaxee mbokku taalibe yi ku mu fekkoon nga nekk Sénégal donc euh, nga xamee ko noonu ak fu waay mën a nekk rek te yor document italien bu jeex wala bu doon waaj jeex document boobu yokkaat nañ ko ba le 30 septembre 2021 ni mu ñëwee ci décret prorogue deuxième nouvelle bi nak bi nouvelle bi ah, bu intéressant donc euh, concerné ñi ñi woy donc braccianti agricoli yi xam ngeen ne donc il secteur de l'agriculture dafa yaatu alors buñ ko waxé yemul rek ci ñi braccianti agricoli yi dem na ba laal li ñi woy donc aquaculture donc allevamento ak ñi nga xamante bi sax moy secteur yi nga xamante ñom ñoo nek ci détail yi euh, liggéey ci walu ginaar yi te détail bu gëna a siiw nekk fële ci côté ci zéna ñu gën koo xam ci amador yi donc di yëngatu ci wàllu ginaar yi ñoom it ci secteur agriculture lañ bokk ak bépp liggéey boo xamante yaa ngi ci biir secteur agriculture agriculture rek alors bonus yi nga xamante ne bii depuis la legge Cour Italia ak décréto di rilancio dañ leen koo xañoon alors tey jii dinañ ci bokk nga xam ngeen ne tey euh, démb euh, syndicat yi nga xamante ne bi ñoo jiito secteur agricole Italie daje nañ ak ministre bi ñu wooy Stefano Padoanelli te li ñu doon waxtaane mooy catégorie gi nga xamante ni bi ñooy braccianti agricole yi ñu insérer leen ci prochain décret ristori bii di ñëw loolu it euh, donc am nañ ci ndam ndax euh, gouvernement bi nangul nañ leen ko donc jamono ji ñuy wax ak yéen donc euh, syndicat yi jiite wàllu agricole yi waroon na wàcc suba pour grève ngir fàtte gi ñu leen fàtte neem ñoom nee nañ grève boobu suspendre nañ ko ndax Euh, gouvernement bi jox leen ay rassurance yu wóor ci ne secteur agricole bi brachanté agricole yi dinañ leen boole ci décret bii di ñëw ñu koy woy décreto sostegno bis war a aprire pour l'indennità onnicomprensiva 2400 euro ni mu ñëwee ci stagionale yi donc képp koo xamante ni bi rek brachanté agricole nga wala nga nekkoon laboratoire agricole rek xamal ne décret bii di ñëw kon léegi xeexal nañ la ba di nga ci bokk kep ko xamanteni rek agricole nga te yor yoron contrat bo xamanteni ni tempo déterminato la rek alors yow di nga bok ci bonus bobu nga xamanteni bi gouvernement bi dox na ci ay assurance te ki di Stefano Padoanelli donc bindu ko tay ci facebookam wax ko ne euh, secteur agricole nga xam ñom ñoo gënoon souffrir ginaaw biñu leen xañee décret ci mujj yeb alors ñom dinañ leen bolé ci décret bi di ñew ñuko way il decreto sostegno bis wala il decreto aprile euh, ñaari information yi mbok yi mo gënoon a tay ma ne woon bala maa dog rek dinaa ko egge mbokki taalibe yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk Mor Talla Sarr depuis Diourbel jërë ngeen jëf